diggante ñaari semaine ci weeru ut bi ñu nemmeeku lu ëpp ñeent fukk ak juróomi doomu aadama yu yore jàngoro gu ñaar ca diwaanu Kédougou mu di rek feebar boo xam ne doomu jàngoro ji koy joxe mooy ab yoo loolee nag day faral di def yaram buy tàng ak a métti yax yi di ruux mooy tax rek ki amee jàngoro ji di sonn lool. feebar bi li koy joxe mooy. benn xeetu la yooyu xam nañ ko mooy xee yi nga xam ne dañoo am tipp tipp yu weex ay ñuul mooy joxe virus bi koy indi loolu nag su duggee nit ki maanaam mun nañu wax ne juróom fan wala fukki fan yu teg rek feebar bi da koy dugg su ko duggee nag day xaw a nuru ak ci yaram bi day tàng cër yëpp di metti surtout yax yi di ruux parfois yaram bi mu am ay putantaan ci yaram bi nit ki mun na woccu bopp buy metti chikungunya nag mi ngi wullee ñaay ci Kédougou waaye naka la mën a def ngir saafara ak moytandiku ni mu mën a lawee jullit ñi li ñu war a seeni taxawaay mooy xeex fépp fi nga xam ne yooyu dañ fay nekk di fa nen wala di fa di fa nekk da ngay fexe ba ndox mi du taa ci biir kër gi lépp luy ndab bi nga xam ne amul njëriñ wala nanga wala ndox mi doon nekk nga dindi ko mu bañ a taawati dégg nga te nit ñi aussi di tëdd ci ay sànke yu ñu nandal jëwrin yi ñu dënk wàllum wérgi yaram jot nañu fësal jéego yi ñu def ngir mën a sàmm kaaraange askan wi waaye fexe ba ñu wàññee lawteef doomu jàngoro boobu bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ndiaye rapport bi nga xam ne mooy équipe d' investigation ci ñuy jëwriñ dénk wàllu wér-gu-yaram ak waa région médicale bi ñu lëkkalool ak seen i partenaires ku ci mel ni waa OMS ak waa Institut Pasteur ñoom ñëpp ñu ngi ci euh, terrain bi ngir mën a xool risques yi nga xam ne mooy law euh, lawteeg doomu jàngoro ji ak plan de communication bi ci aju. naam nekk na feebar bu ñuy faj waaye amagul benn garab bu ñu wax ni mooy bi wóor mag ñi ak liir yi soog a judd ñoom lay gën di lottal ba ñu mën ci loru faagaagal wala rek moytu yow bi koy joxe ngir mën a wàññi wàllante bi ci feebaru chikungunya